c'est-à-dire que man j'ai beneen jàngat laa si am. Euh, jàngat bi ma si moom mooy je crois quelque part aussi les dirigeants du football ont un peu péché suma xalaat toujours ah. ministère bu gàtt suma xalaat bu gàtt. ok euh, en tant que observateur voilà supporter euh, aussi ndit da ngay seet par exemple quand tu joues soo gagné ak koo nar dajal. surtout quand tu vois dans l'autre pour potentiellement kan nga nar a dajal man loolu jaral na ma ma perte yenn marché yi sax pour ne pas pour ne pas être premier pour bañ a daje euh, surtout un pays organisateur daje un pays organisateur y a rien de plus complexe c'est très complexe mm-hmm. et je vais vous dire c'est complexe d'abord il y problème d'économie mm-hmm. Parce que, et puis, j'ai entendu euh, dans les réseaux sociaux, c'est vrai ou c'est pas vrai, Kelson Diatta, bon, euh, euh, la, la, FIFA, que c'est de corrompu, ça. Je l'ai lu, hein, je sais pas, entendu, mais je l'ai lu, euh, dans les réseaux sociaux. Mais, euh, c'est réel, c'est pas réel, je n'en sais rien du tout. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la FIFA est obligée de faire très attention par rapport aux pays Organisateur. Parce que le pays organisateur, Boutogé, mais économiquement ça s'écroule spectateurs yi dootuñ ñëw les chefs d'entreprise qui ont mis de l'argent dans la pub ne viennent plus euh, le stade est vide yooyu yëpp dañ koy siy sóoraale ce qui fait depuis que le monde est monde à moins que par exemple nga dajeek un pays organisateur nga xooj ko ba pare maintenant nag ñoxor njaay un deux trois di nga dóor ko deux trois huit bu boobaa maintenant nag loolu kenn mënu ci dara. kenn mënu ci dara bu boobaa abi l'arbitre maintenant nag il est obligé mais ngay nekk di jouer ay 1-0 ay 1-1 ay ay yooyu ay machin mais arbitre bu amee benn occasion bu sew bu ndaw dina la ko def. mais on se souvient en 2006. bu ñu tasee ñoom Égypte Égypte Coupe d'Afrique CAN 2006 mënoo ci dara. CAN 2006 vous vous rappelez bi ñu dem bi ñu tasante ak Égypte euh, dernière minute Égypte 1-1 non 2 presque quatre-vingt-neuf minutes Diomansy Kamara est fauché dans la surface je sais pas si vous vous rappelez. arbitre bi c'était un arbitre camerounais mais si mais mais c'est un match historique boo xamante ne ñëpp ko. c'est un exemple penalty bu flagrant. c'est un exemple mais c'est-à-dire que yooyu arbitre yi am fit di siffler genre yooyu match penalty yooyu dans un pays organisateur mais tu le difficilement. mais mais est-ce est-ce que Afrique tey warul dépasser niveau boobu. même en Europe tu le trouves difficilement pour faire zone non mais en Europe même en Europe je dis même en Europe. muy organisateur mu toog mu ñàkk a toog Kajoor pour man affaire bi dafa war a dox. économie bi dafa war a dox oui oui non non non les gens ne le voient pas comme ça parce que tu peux pas forcer le spectateur à aller euh, voir euh, euh, ah match quand son pays ah bu du toogee tu peux pas tu peux pas mais hmm. dama ne ñoom dañ ciy sóoraale yooyu yëpp hmm. bon. ils peuvent regarder benn benn benn pénalty bu litigieux. Euh, en faveur du du du Sénégal ñu wax. Eh, eh, da nga bëgg wax kaaf te deewee ñu ñaaxaanaay ko. mais <laughs> yow booy mu wax loolu waxul <laughs> man waxuma dara dama leen damay. xalaat damay laaj quoi xam nga li ngay wax comme si mooy. arbitre booy il est dangereux quoi defal na xam nga plateau la ñu nekk man dama dañ ma laaj suma xalaat. waaw su ma man maa la laaj ndax da nga jàpp ni kaaf te déewul njaaxaanaay par rapport ak. déedéet déedéet yow yow yow yow laajoo ma yow tu veux m'obliger à dire quelque yow lu tax doo ko wax yow. <laughs> je ne sais pas man waxuma arbitre yi man waxuma pays xam nga yow sa argument waxuma ko yow sa argument moom mooy pays organisateur dañu leen di jàppale. <laughs> il changera pas <laughs> yow da nga ni da nga ni da nga ni pays Aïcha lu mu wax. dafa wax président xam la la daf ni pays organisateur yi d'habitude dañuy am benn coup de pouce loolu mooy signifié lan moom mooy. peut-être kaaf. day wax ak waxtaan ak arbitre yi borom ma lay laajee da nga jàpp ni kaaf ñoom mais mais tey ngaa yem foofu si di ma wax rek ah, du ma waxloo kaaf tudduma kaaf tudduma dëkk ba tudduma président ba tudduma kenn léegi yemal foofu rek si di ma wax